asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi safo jàmm ji info di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax ci seen jotaay bu am solo bi lee mbokk yi seen jotaay uh, Wadduha nag uh, bu ñu ko waxee nag xel itam day delluwaat ci uh, jëmm ju baax ji lee di El Hadji um, Mara Cissé moom sëriñ El Hadji Alla Cissé bu njaareem bu Jurbel tabarkàlla ñu di ko santaat bu baax fekk waat ko fii itam ci résidence am fii ci diwaanu Géejawaay Dakar en face lycée Maam Limaamu Laay duñ ci sore dañ koy daal di jox kàddu gi mu daal di nuyoo El Hadji Mara Cissé ñu ngi lay nuyuwaat alhamdulilah Mouhamadul Amin billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahul qawli subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana ñu ngi lay delloo nuyoo lu bëree bëri Mahamadul Amin Muntaxa di lay wax bismillah si daaray Wadduha jërëjëf El Hadj Mara Cissé si nuyoo yu sell yu tedd yi lee tabarkàll euh, fi ñu dellu si waat tuuti rek euh, di waxtaan euh, ci doomu aadama yi nga xamante ni jamono rëb na jamono rëb na mooy dem nañ ba dëkk waaye xat na léeg-léeg sax nga dëkk sa kër ñu ne la yow rek dëkkoo si biir kër gi am na ñoo dëkkandool te doo leen gis ñu ñëw ci mbir moom yi nga xamante ni rek muy wàllu rab rab dañ koy wax waaye tamit am ñoo xam dañ naan la ginne ginne ci biir kër gi wala gin gis naa ginne wala saddum ginne yu demee noonu wax bi commencé naa bari ci askan wi ndax li ko waral rek mooy espace amatul ñu ñëw tuuti rek ci jamono El Hadj ci wàllu muslaay ci wàllu tax waaye tamit bàyyi war njaboot gi xel. alhamdulilah Mahamadul Amin eh, xam naa kuy yàgg di ñuy dégg wala di dégg Wadduha toujours dañuy daan bàyyi xel si dëkkuwaay ndax macha allah fa nga yéene def sa giiru dund. sa njaboot dëkk fa foofu dafa war a mucc waaye dafa war leer mu mel ni ki da ngay gis barab yoo xam ne baatin ba allah waaye saaxir ba eh, ba ba macha allah si rafetaay waaye baatin ba alhamdulilah dëkk nañ ko ki jàmbur te mooy barab yoo xam ne sancuwaay lay doon dinaa di wax ne buñ booy tuur mbalit fa am espace rek nga koy nga koy sotti waxin la si ne bu ñëpp dee defaru ñaare bu ñëpp dee puus ba nga xam ne seen i dëkkuwaay safaan du fa dëkk amaana sa barab bu amee espace mën na am nu def ko sancuwaay Mouhamadul Amine nuy toog ak jëmm yu bëree bëree bëri yoo xam ne seeni gàllankoor lépp mooy dëkkuwaay te dina di wax ne nekk si kër njaboot ga macha allah yàlla def sutura jéemantu nan ba jàng ba diplôme bu nit di am nu am ko waaye am stage waxuma la ak embauche nay jafe day bu dee soxna it am sëy day su dee góor yi jenc soxna day bu yooyu jàllee yi maanaam xol yu neexoo daf fay të guddi goo xam ne bii day ànd ak nelaw yu neex daf fay të yooyu macha allah ku koy faral di yëg rek defaraatal sa sa sa tooguwaay mooy defaraatal sa kër am na gàllaaj yoo xam ne même bu dul dëkk kër ga nga ko def kër ya jegook ñoom sax mën nañ see bénéfice wu macha allah mooy tax nan gàllaajal kër yi Mouhamadul Amin nan gàllaajal kër yi ndax fu fuy njaboot di dëkk macha allah war nay naat war nay feex war nay mel noo xam ne biir ku fa dëkk xay ut mën na lay yomb fa tabarak la Mouhamadul Amin te lépp nit mën na koy am si allahuma mooy tax ni ma koy waxee rek ni saaxiir bi di rafetee mm-hmm. baatin bi nan di fexe ba ku ëmb safaan mm-hmm. war ko fay indi wala lépp luy safaan loo xam ne rab la comme noonu nga ko waxee sanc na fa mm-hmm. wala yoonam lu mu fay jaar def ay ñaan ba nu toxu wala nu teggi yoon boobu fa tabarakalla alhamdulilah amin mhm. dañu doon dégg faral di dégg itam ci jamono euh, téere ginne mhm. ñu bëri dañ koy faral di wax bu ñu waxee ni téere ginne ñu ci bëri xamuñu lan moo tax ñu koy naka lañ koy employé wala tam naka lañ koy yoree ak lan moo ko tax a jóg téere ginne bi ñuy dégg jamono yi ci boutique gi alhamdulilah xam na ni ki cuuraayu seytaane bi frotté bi mhm. téere jinne bi moom waa bitim réew macha allah <laughs> doyatu fa doyatu fa tabarakala ndax yooyu yëpp yàlla dafay def euh, muy dimbale nit ki nga xam ne danay dëkk ak seytaane su jant sooyee rek dootul moom boppam yaramam danay diis wala fa tabarakala barab boo xam ne dafay am lu fay yëngatu dëkkuwaay daal yoo xam ne bi leneen la fa tabarakala ni ma koy waxee doon borom kër gi ak doon ki mag surga bi mag si kër gi dafa wuute yenn saa yi nit ne may borom kër fekk te am na beneen am na beneen borom kër goo xam ne bët si ko fa tabaraka la téere jinne mu ngi sunu boutique gi macha allah muy looy def sa njegenaay ngir di mucc si mbaaxu yàlla si gàllankooru saytaane fu tabaraka la Mahmadul Amin niki faroote beeg cuuraay bi yooyu yëpp dafay dox di daf siy dox incha allah. Uh, muy muy muy lu am solo cuuraay bi tudd nga ko léegi waaye dañu gis ni cuuraay bi uh, daanaka dafa mel ni dañuy gis ñaari façon cuuraay yi nga xamante ni mu ngi ci kër gi. Mhm. benn bi gis nañ ko lu ci bëree bëri lu ñu liggéey uh, ci wàllu xaatim day am ci biir ak mbir yi ñu ciy boole. Mhm. beneen bi dañu gis ni mu mel ni lu comme forme grain la lan moo waral loolu. waaw alhamdulilah macha allah ndax ni nu koy waxee su. sunu borom mm, lu nekk rek am na lu mu si nëbbu macha allah cuuraayu miracle boobu uh, day baax lool sax ngay tàngal ndox def si tuuti rek bu ndox bi seddee nga wis ko sa kër yëpp tabaraka la day am solo mm, day baax looli di koy suuroo mais ku loo si am rek doy na nga teg si ànd mu saxaar yenn saa yi nit mën nay am sase bi mën nay nekk ak moom ay weer tabaraka te day loo xam ne barab boo ko laal. wala saxaar ba jóg fa mhm. seytaane du fa du fa du fa nekk fa tabarakalaa nekki maa u sifa bi noonu la mel mhm. même kuy sey sax soo ko ko laalee rek day jóg doxi soxlam fa tabarakalaa mooy tax dinaay wax toujours day baax mhm. njaboot gu nekk mu garde ko ngir yaram buy tàng rek yan yaram yëpp di sedd macha allah waaye comme njaboot gi du ñu ñàkk di génn ak nu ngi si année beeg yooyu day baax yenn saa rek nga sotti tuuti si ndab dolli si ndox fa tabarak njaboot gi yëpp naan sangu moom la ñuy wax Maoul Sifa moom it mu ngi si boutique yi dinaay wax njaboot yu bëri nanu koy garde fa tabarak laa niki cuuraayu miracle boobu nga wax it waaye niki cuuraayu seytaane bi muy cuuraay boo xam ne bii macha allah moom it kër goo ko saxaatal alhamdulilah macha macha mhm. allah. mbokk yi muy lu am solo tabarkàlla euh, ndax ni mu ko waxee rek euh, bu ñu ne El Hadji Mara di wax xaritu njaboot gi ndax saa su ne da ngay dégg kàddoom euh, di ko jëmale rek ci njaboot gi ndax njabootam mooy lépp El Hadji Mara dañuy ñëw tuuti rek ci li nga xamante rek moo di savon am na ñoo xamante ne xëy na ci baatin léeg-léeg dañuy am espace xëy na duñu ne duñu duñu nangoo sangu dinañ ko bëgg waaye ñu ñëw ne comme ci wàllu cat bi ñu doon wax noonu am ñoo xam ne savon bi demoon na ba ñu génnee ki ci boutique yi ay savon yu yéeme ci wàllu li nga xam ne moo di cat wàllu cat savon bi am na ñoo xam ñaan sangu espace laa am xëy na fa ma nekkee waaye bu ma delloo sama dëkk dinaa ko mën wala espace bi fi ma nekk mënu ma ko sangoo wàllum baatin ci wàllu zaahir bi comme savon bi ñu bëggoon tuuti ci wàllu cat ndax boobu ba léegi moom it ñoom bokk efe ñoom ñaar alhamdulilah muy saabu yi dafa am saabu cosaan yoo xam ne dafa am saabu buy faxas cat am saabu boo xam ne bii saabu bayre la am saabu boo xam ne bii saabu seytaane la yooyu yëpp na mën nga ko sangoo si même toilette macha allah comme noonu nga koy waxee rek ñu espace li jafe waaye sangu saafara dinaa koy wax ñu bëri bëri suñ dee wax espace ma ne leen jafewul mm-hmm. fexeel yaram bi yëpp tooy te nga bañ a fomp loolu même mën nga ko def si barab soo paree rek jël dara fomp macha allah. macha mbokk yi kon yéen a ko dégg noonu noonu euh, tawarkal la ci zaahir rek baatin bi leeral bi noonu tam dafay am solo téere poche bi ñuy dégg lan mooy njariñam téere poche ndax garanti la rek wala téere bi nga xamante ne ama amaana wàllu kaaraange la wala lu mu ci lan lay dox. waaw du téere bi maye ay millions wakki walla ay milliards waaye mën nay tax ba doo dajeeg seytaane fu tabarak la mën nay tax ba. Euh, boo naree dajeeg agresseur du ngeen bokk yoon fi tabarakallah wala du am si yow man-man téere kiirlaay la moom it macha allah euh, bu poos wala poset wala kalpe fu mu fu mu man di nekk rek si jëmm doomu aadama ji nga xam ne day buuse lu bëri mhm. dana doon njariñam si kàttun yàlla incha allah muy lu am solo mbokk yi dégg ngeen ko tam euh, nekk ni tam dana la dimbale ci lu bari euh, ci wàllu am am ci wàllum koom-koom waaye tam ci wàllum euh, kaaraange mu mel ni tamit fan yi ñoo ngi doon gis tamit boutique bi saa su ñuy gën a dox tamit ñuy fàttali bàyyi nit ñi ci zaahir bi waaye baatin baa ngi fi muy wàllu tey miracle bi ñuy dégg ñu si bare bari dem nañ ba mënatuñ ci am lu doy ndax daanaka njariñ bi ñuy gis wàllum ataaya ba nga xam ne mbirum ataaya lañ koy def ñu bari am na ñoo xam ne sax bu ñu nanguloon naan ataaya bu ñu ko gisee dinañ ko naan ndax njariñ bi surtout nag si ñi nga xam ne nu ngi magal sell si eh, ndax day maye appétit eh, ñi nga xam ne danay ame insomnie lu bari tamit da leen di dimbale ñi nga xam ne dañuy faral di def ballonnement tamit da leen di dimbale seen biir day jël air ñi nga xam ne bii danay faral di am mauvaise haleine donte woo am na garab spécial pour mauvaise haleine mais tey bi macha allah daf koy traité muy tey miracle comme nan nga ko waxee muy attaaye boo xam ne attaaye lu naturel la attaaye la waaye attaaye la boo xam ne barke dafa am barke ba yooyu yëpp kii lekkam wàññeeku ki nelaw di koy jafe kii def ballonnement mm-hmm. yooyu yëpp macha allah si mbaaxu borom bi da si am dimbal si kàttan yàlla. muy lu am solo waaye tamit ba léegi ñëw ci wàllu ouverture ndax doomu aadama bu ñu ko waxee dafa war a ànd ak ouverture wàllu ubbite wàllu daanaka am na ñoo xamante ni parfum bi gis nañ ko wala ci wàllu ouverture am na loo xam ne ni ma ko waxee ci bu ñëwee ci baatin waaye tamit am na loo xam ci zahir la waaye ba léegi parfum bi dafa ni tamit dafa amaale baatin ci biir ndax bu ñu nee parfum ouverture wala dafa amee baatin dafa amee macha allah dafa amee alxuraan dafa amee alxuraan ndax du parfum rek macha allah muy parfum boo xam ne bii macha allah Euh, kii yore place am mën na koy def si place ki nga xam ne bii day xëy di wuti mën na koo parfum doog dem macha allah parfum fertir comme noonu nga ko waxee la am tamit mm, daraximul kiis mm-hmm. am it loo xam ne ouverture la macha allah yooyu yëpp yu nu fàggu la mm-hmm. ngir bëgg lépp di jàppandi mm-hmm. ñi nekk bitim réew nga xam ne mën nga def commande nu joxal la ko CP ñi nekk Sénégal fu waaye nekk Sénégal 24 heures mën nga si jot incha allah si kàttanu borom bi. dégg nañ léegi nga wax euh, Drahimul kiis ñu bëri tam xam na ni jot ci yombul tamit dafa nekk loo xamante ni itam liggéey bi ko ko xool xam ne lii boo ko ne jàkk rek xam ne lii mbiru baati ndëgg la euh, Drahimul kiis ba pare ne kiis waaye amaat beneen kiis encore boo xam da nga ko génneel mag ñi nga xam dañuy gaaw a fàtte kiis ci ñuy fàtte la muy xale mag ñi nga génneel leen kiis waaye Drahimul Kiss ñu bëgg ñett yooyu nga leeral ñu ko wallaay wallaay bi nga xam ne day tax nit du kii naax kii jaxasoo ki nga xam ne bii day gaaw a fàtte sa yow ne si liggéeyukaayam macha allah day absenté lu bëri mooy kii su mag si gàttal moom la ñuy wax sirul fahmi sirul fahmi waaw moom mu ngi si boutique gi macha allah kiis bi nga xam ne ngir xale bi nga xam ne day jaxasoo day fàtte moom mu ngi si boutique yi macha allah daraximul kiis nag day baax lool si ki nga xam ne dafay bëgg poosam di am weccet mooy mu ngi si boutique yi fa tabarakallah te muy yoon boo xam ne soo ko jëfandikoo ut am mën na lay yomb Mouhamadul Amin am day ànd ak ut ak sabablu <laughs> di am na mag sunu bàyyi bu doon wax ne ki dàq napp expert bi dàqa napp si àddina bi mm-hmm. nee na ku ko yóbbu woon àllukaañ ne du la indil benn jën lu tax mooy da du ko fa fekk mooy tax nag macha allah xëy di sabablu xëy di sabablu boo àndee ñaan rek am mën na yomb fa tabarakallah nii ngay xamee ni ñaan lu am la maa ngi dend ak Mouhamadul Amin ñun ñëpp ñu yor suñuy e, castoror di si jaay crème wala leneen macha allah moom mën na jaay ba jaayal ma te noo bokk le même qualité <laughs> loolu mbir la. <laughs> waaw loolu yaa quelque chose mooy tax nag eh, di di di ñaan dafay am solo macha allah te darahimul kiis ku koy jëfandikoo noteel dat ba ko jëfandikoo ba lay agsiwaat macha allah da nga yegg sag yokkute si kàttan yàlla njariñ lu rëy loolaa tax nu def ko si kitaabu Wadduha ñi ko am ñëpp mën nañ ko fi jëlee bindu ko mm-hmm. ndax loolu lépp si yéene la macha allah. waaye ñi nga xam ne bii bëgg nañ koy am am na yoonu bind bàyyi si boutique yi nga xam ne suñu demee arxuraan la noo koy am defaral ko seen bopp bind nañ si am na notice niñ koy jariñoo ñi lépp danañ ko mën a xam Mahamadul Amin mu mel ni daañ ci dellu si waat tabarkàlla El Hadji Mara Cissé mbokk yi rek di leen fàtt rek eh, dafa doy sëkk rek bu ñu waxee itam ki ko meññ di El Hadji Alla Cissé bu njaareem eh, ca di leen fàtt rek eh, ni adresse bi fii Dakar la géej waaye en face lycée Mame Limamou Laye numéro téléphone baa ngi noonu ci baaru écran bi 77 919 71 00 bu fekkee site web bi www.wadduha.org bu fekkee YouTube bi da ngay def Wadduha TV El Hadji Mara mu mel ni dañuy ñëw tuuti rek ci li nga xamante ni rek doomu aadama bi dama koy wax toujours muy wàllu xalwatu mu li ngay faral di eh, def lu bare bari waaye El Hadj Mara parfois léeg nit yi day poser question ne kan moo war a def xalwa kan moo ko yellool waaye tamit xalwa ci ay différents eh, dëkk maanaam moo xam gox-goxaan léeg mën nga def fi xalwa xam ne xalwa fii bi tey doxul ñu ci bëri bari parfois ñu def xalwa waaye duñ ci am résultat mu nekk nag liggéey boo xam ne yombul. alhamdulilah Mahamadul Amin mais ko di nuyu waa Louga te di leen di siyaara saa yoo tuddee xalwa rek sama xel dem si Louga. ndax ni nu koy waxee bala ngay jaay bala ngay jaay da ngay war a lekk macha allah te danoo lekk ba regg macha allah mu ànd ak barke nu doog a sañ a wax xalwa ndax macha allah sama bopp laa ko njëkk defal eh, na mu demee woon wax naa ko waxati ko waxati ko fa tabarakallah Mouhamadul Amin gëj ñaa rafle lool macha allah te bokk na sa ko may. nekkoon si xalwa wàll yu boo xam ne eh, àddina bi yëpp ko xam jox ma mbubb ne ma solal tabarakallah eh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ëpp na di wax si réseaux sociaux waaye ka nga ko war a defal mooy mooy ki nga xam ne bii rek yàlla dogal na ko si moom mu am yitte boo xam ne diis na tar na su borom it lenn diisul si moom macha allah lenn ni tarul si moom mm-hmm. nga def toroxlu seetal ko taxawaayam seet bés ya gën si moom macha allah mm-hmm. ak barab ba gën si moom ak sarax ya gën si moom macha allah nga wéetal yàlla dogu ñaan yàlla fajal ko aajo boobu macha allah bu si tënk mën na ne loolooy xalwatu Mouhamadul Amin muy loo xam ne bii nan koy waxee rek képp ku yàlla dogal muy sa wërsëg yàlla na lépp jàppandi Mouhamadul Amin. ki ki ki wal euh, ki xalwa yëkkati ci boppam ci jamono. ba am ci ndam. Euh, ndax loolu euh, dina yomb lool ngir waat ko am na ñoo xam ne léeg-léeg ñu gis doomu aadama di dem rek ay mbiram a ngi dox mooy ñi nga xam ne tey nga gis ay homme d'affaires yoo xam ne seen mbir baaxoon na mhm. euh, macha allah moo ngi doon dox mhm. ndax loolu xalwa mën na koo taalaat te bu ko taalaate ba yëkkati ko macha allah est-ce que wàcceewaat ko ëllëg dina yomb wallaay moytu luy tax wàcc di am rek te bokk na si tooñ Mouhamadoul Amine tooñ ak àq mhm. loolu lu luy luy yàqi mbir la fa tabarakallah moo tax toujours jaam daf koy war di moytu mooy tax taal bu demee ba tàkk dañ ne yenn saa da ngay gën di xambu xambu ga nag du toujours da koy def waaye mooy lan mooy la lay yàlla xee baaxee si ay xéewal day siy dimbale day si dimbale ñi nga tene day ëmbal ñëpp jàmm sa xol bu si ëmbal kenn safaan day moytu xeex di moytu tëkkonte di moytu àq di moytu riba yooyu yëpp fa tabarakallah lu yàlla jagal sa àndee gii ma la wax nii rek lenn lenn lenn lenn mënu ko wàcc ma. muy lu am solo tabarkal la euh, ni ko sëriñ bi waxee tam ñu ciy bàyyi xel ne la nga gis euh, ki nga xam ne nekkoon na ci yoon lool waaye li koy wàcce du ko xam lu mu doon te waaye itam lu jara euh, bàyyi xel bu baax a baax la sëriñ bi mu mel ni dañuy ñëw tuuti rek ci li nga xamante rek moo di daanañ ko wax rek muy tudd nga ko léegi muy kitaabu Wadduha ndax ñu bari dañoo demoon ba jamono xam ni téere bi ëpp naa génne ci jamono waaye li la ko génn la itam bëgg ñëpp jariñu ñëpp mucc rek na nga koy waxee waaye mu nekk loo xamante ni kitaabu Wadduha fu mu nekk nii pour am ko par commande rek nga ko mën a defee ak ngi nekk ci biir askan bi laaj na ñoo xamante ni xamuñu ko woon ñu xam ko. alhamdulilah sant yàlla bu baax rek ndax bi ma koy xalaat 2011 wax dëgg yàlla xaalis taxul woon yéene bi mooy na ma koy waxee toujours nañ ñëpp mucc nañ ñëpp yokk yàlla di yombalal ñëpp tëdd ak tibb ak sangu su yàlla defalee defee nga am émission rajo boo xam ne depuis 2011 mi ngi jàll. yenn saa nit ñi nit ñi di lay woo dama bëgg si kar si nangam dama bëgg aaya sangam ngëneel yoo si xam nga dem ba xalaat ne war naa mën a def loo xam ne bii kat macha allah ni doomu aadama dana si jariñu mm-hmm. waxtaan seek samay wëllëre yu baax it nu encouragé ma si macha allah mm-hmm. utal ma ñoo xam ne dina man lay aaya alxuraan nu bind ko si français macha allah la ñuy wax tarjumaan te mooy explication yi nu def ko français mm-hmm. def ko alxuraan def ko français e, mu doon trois cent treize pages yoo xam ne bii ki jàng arabe dana ko mën a jariñoo ki jàng francais dana ko mën a jariñoo ay ñaan nekk si commencé ko si njariñu fatiha commencé lenn si njariñu suratu yasin lenn si ay kayfiyaat yoo xam ne day dimbali nit ki si dundam si moom lay wax ne ndeysaan am na wóllëre bu baax boo bu nemoon sama doom laa ko jëndal te su ma ko joxee dama ko naan na nga fexe ba samay set nanu ko liir mu ne ma nax day loo xam ne su nu ko bëggee rek di koy yiir Eh, seen giiru dund yàlla mën na leen di dimbale ndax loo xam ne luy faxas eh, cat ma nga sa luy toj njabar ma nga fa luy gën a yëkkati nit si ay xéewal lu mel ni darahimul kis bi ma nga fa luy aar njaboot ma nga fa luy aar jigéen ju wérul liy gën a maye wér gi yaram liy saafara tawat liy yokk kàttanu góor yooyu yëpp macha allah du lépp waaye lu si nekk rek am na lu mu sa tënk def ko sa loolu macha allah ku ko am yàlla mën na lay dimbale sa giiru dund mu jariñu la muy loo xam ne 2016 ba tey mm-hmm. wallaay barke barke doxaa la rek waaye konoon tuddatuñ ko waaye ba léegi ba léegi nit ñi dañ koy yittewoo kitaabu Wadduha nu si santiyal lu baax Mouhamadul Amin mbokk yi muy kitaabu Wadduha képp ku xamoon njëriñam ah, dul rek ci benn yoon ni ma ko waxee fépp ci àddinam les cinq continents du monde ah, tey boo fa duggee am na ñoo xam ne tey moom la ñuy toggaale tamit di ci di ci jëfandikoo tamit di ci gis njariñ bu baax a baax a baax ni ma ko waxee sur commande la rek fi mu nekk nii lañ ci tiré woon ku xalaatoon ni ci jamono bu ñu tolli en 2022 ah, par commande rek nga koy mën a amee dina jaaxal ñu bari bari ndax barke bee tax tabarkalla El Hadj mu mel ni dañuy ñëw tuuti rek ñëw xanaa waxtu baa ngi bëgg a wàcc rek ñu ñëw tuuti rek ci li nga xamante rek moo di Euh, ñi nga xamante ni parfois dañuy amee méttitu bopp euh, méttitu bopp dafa am ñoo xam ne dañu naan la euh, daanaka dama ko dama ko dama ko ganawaale maanaam daf may topp maanaam sama jamono ba ma juddoo ba léegi daal méttitu bopp sama feebar la am na ñoo xam ne nag dab la day ñëw ci ñoom El Hadj mu nekk loo xamante ni mbir la phénomène boo xam ne bu ñuy gën a dem ci jamono day gën a bari léeg nga dégg sax jigéen ñi ñoo ko ëpp sax fu ñu koy jàmbat fu mu toll nii. wallaahi Mouhamadul Amin muy luy yaatu nag ñaar ñu si bëri nag mbiray tàgg seen kaw bopp rek mooy tax toujours nu tàggoog méttitu bopp du yomb la say ndimbal nag indi nañ téere boo xam ne téere bopp la du mu du luy diisal kenn macha allah bu dee soxna mën na koy musuru booleek musuram su dee kuy sol mbaxana mën na koy def si mbaxanaam muy loo xam ne bii comme noonu nga ko waxee baraana su dee am bu dul tension ñaaree lu si bëri amaana muy yaram bu war a set rek ndax ñaare nit saa yu nu ko sëfee wala nu njabar ko danay bokk si ay effet yi na mu ko yëgee muy bopp ak ndiggam yàqu ndiggam macha allah baraan na njabar yoo xam ne suy fayu si yaram dinay def effet si ñaari barab yooyu macha allah mooy tax nan di faxas yaram yi comme ni ma koy waxee nan di faxas yaram yi ndax jamono léegi du woon du jamono yi 1960 Mahamadul Amin léegi ku ne si yoon rek am nañu lay dogaan am na ay. toujours rek da ngay teggi ndëgg serax yi nu ngi fu nekk moom moom lay wax ne ku mucc rek àgg macha allah ku ne si yoon macha allah boo daanuwul si ndëgg serax yi rek da àgg fa nga jëm waaye ku ne si yoon rek ak nag loo xeebu xeebu wala loo xeeb xeeb sa bopp jàppal ne am na jëmm yoo xam ne wàcce la wala surxal la rek moom la ñuy wëddi te ñooñu dañuy laxasoog seytaane te pexe seytaane du fi jóg illaa yow mi di ndax loolu macha allah depuis. yàlla sunu maam aadama ba bés penc seytaane ak i pexeem du mas di fi jóg mhm. la ñuy nag ñun ñi nga xam ne julli lan te gëm mhm. musluwaay te gëm arxuraan mooy lu si di saxook laab lu bëree bëree bëri te di muslu it fa tabarakalaa di sangatu mhm. te xol yi tamit nu nu nu nu raxas ko nu raxas ko dinaa di wax ne ku si nekk ni nga mer ren mooy la nga yéene woon nit ñi daaw kon loo yéene si doomu aadama yi bu la ñëpp doon pexeel tamit mm-hmm. dana woyof ndax sa yéene bu rafet ba nga leen amal macha allah mahamdul amin téere bopp lu nu defar la yoo loo xam ne ku dem si boutique yi da nga ko mën a am incha allah. Mm-hmm. El Hadj ndax ni ma koy waxee rek daanaka waxtu baa ñuy bëgg a dab waaye mënul ñàkk xel bi dellu si waat léegi di koy tooyal lal bu ñu ko waxee rek mooy xam ndaw surtout bu ñu tollee ci période am na ñoo xam dinañ ko def mais bu mel ni seddaay bi buy waaj a dugg ki ndaw ñi lay gën a sonal léeg sax mag ñoo xamante ni daanaka lii tere na leen sëy tere na leen am borom kër ndax kersa El Hadj Mara euh, loolu lan moo ciy pexe jamono ji alhamdulilah na pexe bi mooy ñaan rek ndax ordonnance yi nan si boole kitaabullaahi te muy alxuraanul karim defe naa man déggaguma comprimé wala ordonnance boo xam ne dan naan boo ko jëlee doo tooyal tooyalal xaj na mën na am mais man déggaguma ko waxin la rek si ne yaa quelque chose ndax ki nga xam ne dem na ba ma sœur nga xam ne bi macha allah su duggee si wana day yàkkamtee génn dem ba fa nga xam ne fa lay dalloo day xëy làmb mu tooy loola du tayeef mooy tax macha allah ñu ko yàlla nattoo nañ leen di comprendre muy feebar bu kersewu nag yenn saa nit daf la koy wax daf koy waaj waaj waaj mais bu la ko waxee rek da dalal xelam. wax ko ne ko du lu mu sabab lu moom tey lu koy euh, borom bi teg la si mbaaxu borom bi te suñuy borom sunu borom bu ay buntam tëjuwul. bu nu ñaanee rek yàlla mën na koy defal sutura. kuy tooyal lal moom it préparé nañ si loo xam ne saafara la. muy lu nu mën a am si boutique yi bu fekkee xalel la bu fekkee atam ëppul 15 waaye su ko ëppee nag day baax nu am jotaay wala nu déggante ngir nu mën ko seetal yoon bu gën a diis ndax nañ koy waxee aspirine waa du du du tawat yëpp lay faj macha allah. Mhm. jërëjëf El Hadj Mara mbokk yi mel ni rek ñu ngi waxtu waa ngi xëcc kii eh, daaneel jotaay bi El Mara Cissé nag di leen ko fàtt rek numéro téléphone yaa ngi noonu ci baaru écran bi 77 eh, la 919 71 00 site web bi 3w point wadduha point org compte YouTube bi nag wadduha TV la di leen fàtt El Hadj Mara Cissé moom El Hadj Alla Cissé bu njaareem bu Jurbel tabarkàlla moom la ñu amal jotaay eh, fii ci résidence am Dakar Guédiawaye en face lycée Mame Limamou Laye El Hadj Mara mu mel ni dañuy ñëw ci néew kattan góor ñu bëree bëri El Hadj Maria jafe-jafe boobu waaye dañu ne takk xale yi dañuy gën a dem ci jamono takk xale yi di gën a ñëw takk xala ak new kàttan ñoo xam ni daanaka lii xamuñu ko waaye bu ñu jëlee soxna moo xam wala ñuy waaj a jël ñu yëg ni dañu dem ba jàpp ne dañ naan la rab la ñii dañu jàpp ne rab moom xam naa ni rab moom wala génne moom bu fa doon porter plainte dina metti trop. wallaay wallaay wallaay Mouhamadul Amine xam naa <laughs> nan nga ko waxee de suñ doon war war nañu am droit de mars macha allah ndax bari na luñ leen di jiñ Euh, comme noonu nga ko waxee bari na si xale yoo xam ne SRS la du yëpp nag waaye am na si macha allah muy lu bari loo xam ne mm, danañ di am jotaay yu demee noonu te mooy nit am seet te mënta ànd ak moom muy ni ko waxee nag ñaare mën nay ne si ku jigéen ki am faru rab bu fiir wala ku góor ki am coro rab bu fiir yëpp mën na si nekk macha allah. am na si soxna yoo xam ne dañuy tëj seen kanam ba nga xam ne suñu nekkee seen sëriñ du nu am bànneex mm-hmm. bu ndee sëy dafay métti yooyu yëpp ñaare rab dana koy def laa góor ñi nga xam ne sunu seen xel ne si seen soxna rek macha allah seen fit day dem mm-hmm. su ko defee macha allah du nuy du nuy sawar mm-hmm. loolu yi ñaare dinay doon rab mooy tax dinay baax lool ni ma koy waxee barab yi bu nu ko bu nu ko aaree rek fi tabarakallah mën nañ di mucc si yooyu fi tabarakallah aar barab yi ba pare di sangatu tey suuru waaye am na ay garab yoo xam ne bii ki nga xam ne dafay bëgg di gën di sawar yàlla mën na ko see defal sutura mu am confiture am si li ñu wax euh, bio yoo xam ne yu am am solo la waaye am frotté yoo xam ne bii yu ama am am solo la muy loo xam ne bii tukki na fu nekk sàddina bi muy garab yoo xam ne day gën a dimbale nit si si ak cawarte incha allah. mbokk yi ci wàllu néew kàttan boobu sax pour leeral ci am na li ñuy tuddee bambu mu ngi fii ci euh, boutique yi fii ci képp ku ci bëgg ci commandé rek tabarkal la lépp ci biir néegu sëy la ak ay frotté kemtaan euh, la mu nekk loo xamante ni euh, góor ñi nga xam ne am nañ jafe-jafe li ni mel wala soxna yi nga xam ne yëguñu lenn ci biir néegu sëy ci wàllum bànneex loolu yëpp nag boutique bi dafa ñëw rek ngir wàcce leen ko fii ngir rek fësee na rek jaamu ci yàlla bu baax a baax a baax élagement ramel ne dañuy daal di teg jotaay bi waaye mënul ñàkk ci réew mi ñaari doom yi nga xamante ni doomu Sénégal yi nga xamante ni daanaka jote nanu euh, jiñante am na yaa def defuma wala sax amaana euh, muy Ousmane Sonko Adji saar di waxaat li nga xamante ni passé woon na fi mars xel yëpp commencé woon euh, dalaat fan yi ndax li nga xamante ne nag xel ngi dal nànk-nànk waaye ñuy ñaan yàlla mu gën a dal muy ñaari ndaw ñoo xam ñaari doomu Sénégal yoo xam ne ni jote am na seen biir El Hadj kaddu gi nga xam moom ngay tàggatoo ndax Sénégal jàmm rek la ñu xam te it ni ma koy waxee ñu ngi nekk ci yoonu buntu gaz la ngi fi di ñëw pétrole la ngi ñëw yu bari war nañ ko mën a moytu ci réew mi surtout élection yi ñuy jëm. alhamdulilah Mahamadul Amin si domaine boobu moom xam naa mënuma si wax ndax lu tax mooy duma si wax lu kenn wax masul wax eh, lu nu si wax rek ñaari nit wax na ko te mooy loo xam ne biir na ma ne bu dem bu doon tey ka fa demoon du fa dem macha allah loolu moom wóor na ma fa tabarakala mbir la moo xam ne bii. Eh, xam nga ni ñu koy waxee rek ñi siy wax ñi siy wax ak far yëpp danay am lu ñuy bàyyi macha allah ñi far ak euh, Sonko euh, dem na fa ga rek waroon nañ ko see yedd waaye dañuy jéem di indi ñoom it seen lay ñi far ak ma fis présidentiel tamit du ma ne ñoom sax xaj na xeex bi du seen xeex ñaari citoyen la comme noonu nga ko waxee waaye daal mënuñu see wax lu si kenn waxul li nga wax nag mooy réew mi alhamdulilah rek lañu wax bu yàlla defee Sénégal deux mille vingt deux nu ne euh, pétrole ak gaz am na fi nu ne jël nañ Coupe d'Afrique euh, fa tabarakallah euh, yooyu yëpp doon bunti naataange bunti xéewal Coupe du monde bi mu ngi nii di ñëw yal si yàlla defar réew mi ndam. élection yi di ñëw it nañu ko waxee 1960 ba léegi ay at la. te ñeenti tur lañ fi jàpp ne noo fi nekk gun président noonu it képp ku koy nara doon yàlla noppi na si macha allah boo seetee eh, président de la république ni mu ni mu jëlee réew mi nga xam ne suñ borom mooy tànn njiitam xam nga ki nga xam ne surga la woon si maître Abdoulaye Wade eh, mu doon directeur doon fa ministre lu lépp mu doon garaat yoo xam ne nit ko ko ràng te mooy maître Abdoulaye Wade eh, ndax maître Abdoulaye Wade soo xamoon ne Macky Sall mii moo koy wóotu te mu yéene te yéene wu ko ko ndax su ko defee directeur rek du fa yemale ay fonction mais yàlla lam ko nammee woon nam woon na mooy doon quatrième quatrième président moo tax fa tabarak laaj si coobareem nu jaar foofa yëpp ba mu doon président assemblée eh, mbir coow am sa mu delloo leen seen assemblée delloo leen lépp loo xam ne dañ ko ko joxoon dem si askan bi di koy laaj ay baatam coobare yàlla ñëw tamit askan bi wóolu ko jox ko ko loolu fa tabarakalaa saa yu ko yàlla jeexalee fa la yem kon fa tabarakalaa nii eh, des na macha allah léppay rafet léppay rafet ndax euh, ku ne woon abdu Diouf vingt ans dana fi jóge lépp sedd ñu bari mën nañ koy bañ a gëm mhm. maître Abdoulaye Wade mi nga xam ne moo yar président Macky Sall ba ko yàlla jeexalee gis nga lépp a sedd mu woote nangu macha allah euh, nangu defetam Macky Sall installé wu réew di dox moom it macha allah su demee ba fonction di jeex mhm. moom it noonu rek lay demee fi tabarak la waaye nan di rafetal nan di rafetal fu tabarakala man lu tax ma xaw a tiit mooy ñu si bëri léegi far gi dem na ba ba da ngay dégg si ay kàddu loo yoo xam ne kenn xalaatul woon ne dina jóge si si si Sénégal fu tabarakala loolu moom lu nu lu nu xaw a tiital la fu waaye daal nu ngi rafet njort bu baax si ne kii gën si réew mi yàlla dina dana ko fi teg nu ngi rafet njort ne jàmm rek rek rek rek tamit mooy am macha allah mahamdul amin. jërëjëf mhm. El Hadj Mara Cissé dañ lay bàyyi rek euh, kàddu gi nga tàggatoo euh, ginnaaw si rek euh, maanaam jëmale ko ci mbokku téléspectateurs yi. alhamdulilah xam na fi ma daanelee moom maa ngi si jéggalu sa amee safaan ñaare dinaa si waxtaan privé mais wax waxtu wax si public moom bëriwul te mooy mbiru politique. xam nañ si lu bëri nag ndax dañuy topp actualité mais xam nga wax ak wax ak àddina dafa jafe te léegi parparloo bi dafa bëri. te macha allah lu nuy wax dañ ko yéene wax te yàlla rek tax di nu ngi lay santaat di lay gërëm macha allah di ñaan yàlla gën nuy sàmmal suñu kóllëre di ñaanal sa gi di jàmm ji info yàlla yokk fa jàmm ak xéewal macha allah kàddu yi lu si jub yàlla la lu si safaanu nu ngi koy jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu santaat nañ ko euh, beneen yoon mbokk yi euh, di El Hadji euh, Mara Cissé moom sëriñ Alla Cissé bu njaareem ci Jurbel di ko santaat bu baax a baax mbokk yi ni mu leen ko waxee saa su ci kàddu gi dal wi yar wi tabarkal ci xam-xam gi waay itam du koy sax doxee ñu di ko santaat bu baax a baax a baax ci disponibilité bi nga xam ni saa suñ ko yittewoo rek moo may ñu li ni mel di leen fàtt rek adresse bi fii ki nag bu dee Ndakaaru fii Géejawaay la en face lycée Mame Limamou Laye ci Géejawaay numéro téléphone baa ngi noonu ci baaru écran bi 77 919 71 00 bu dee site web bi da ngay def 3w point wadduha point org bu dee compte youtube bi wadduha tv ñu di ko santaat bu baax ci euh, jataay bi lee di ko sant di ñaan euh, defal ko saxaat daare ni ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa yàgg lool di jëflanteeg askan wi waaye sa borom bi itam di ko ci defal ndam seen jotaay bi nga xam ne wadduha la woon ñu di ko santaat bu baax si wàllu